chers collaborateurs de Monsieur le Ministre, chers honorables collègues, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, je réitérer mes félicitations suite à votre nomination, mais surtout pour le travail remarquable que vous avez à la tête de ce département depuis que son Excellence le Président Macky Sall Denkoloko. Monsieur le ministre, Bougona, aussi féliciter le gouvernement du Sénégal par rapport à la gratuité de la césarienne, euh, gratuité aussi dialyse, mais aussi surtout la politique de la couverture maladie universelle bi nga xam beaucoup de Sénégalais. Merci aussi monsieur le ministre pour les centres d'hémodialyse yi nga dans certaines régions Tay Amnafa, na fa ba tax na ñooñu dootuñu déplacer kilomètres pour à Dakar pour des monsieur le ministre je nga que Mbour suis là, donc vais revenir à rek monsieur le ministre ma euh, doléance monsieur le ministre au Grand bourg compte tenu de la situation euh, géographique bi nga xamné Mbour nek nako tay xam nga né aéroport Blaise Diagne Mbour la nek tay monsieur le ministre autoroute bi à péage bi Mbour la nek légui tay ñu wax portu donc vu compte tenu monsieur le ministre de la situation géographique mais du poids économique aussi monsieur le ministre de Mbour monsieur le ministre compte tenu aussi du poids démographique de Mbour jàpp naa ne hôpitalu Mbour tey war nañ ko yóbbu mu nekk niveau 2 te fii ak ñaari at ñu yóbbu ko li nga xam ne moom moo nekk niveau 3 monsieur le ministre. monsieur le ministre accueil hôpital bi aussi bëggoon nañu nga gën ñu ci jàppale ñu gën ko renforcer xoolaat ko bu baax surtout ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu urgence yi monsieur le ministre personnel bi nekk Grand bour doyul monsieur le ministre nous nañu aussi nous moderniser la maternité de l'hôpital de Grand-Bourg monsieur le ministre nous vous d'accompagner continuer d'accompagner les communes rurales du département de Mbour à savoir Nguéniène Tchadjaï, Malikunda, Fissel Ngeexoox Singa, Sangara, Somone Gaparu, bari nañu 16 lañu lu ci ay communes rurales dans le département mais nous avec vous mën nañu compter bu baax ci yow yaakaar ne daa faj suñu soxla yooyu nga xamante ne askanu département de Mbour moom la soxla di la encourager waat monsieur le ministre bu baax a baax di la féliciter di la waxaat aussi suñu disponibilité pour vous accompagner nga mën a réussir li nga xam ne son excellence le président Macky Sall daf la ko dénk yow ak say collaborateurs bon vent monsieur le ministre je vous remercie madame la présidente. le département de Mbour ça fait partie des départements yu gën a mag ci Sénégal sur sur population aussi. infrastructure yi ñu yor tam ban département yoru moo tax tey ku mel ni département de Mbour dafa soxla ay centre de centre yoo xamante ne traumatologie ça veut quoi ça veut dire tey euh, yi nga xam ne kenn ñaanu leen accident mais accident yi pour nga war a mën a gaaw opération ni ñu opéré nit ñi ngi demee noonu yooyu war nañu ko mën a am gis ngeen département de Mbour aussi hôpitalu mbuur gis ngeen hôpitalu Mbour sori na yenn dëkk yi sori waaye boo xamante ne nii jéggi na dayoo parce que booy xool tey nga war a jóge ko dëkk mel ni Ngexoox avec la circulation nga war évacuer ni mu ñëw ñu ci suis a à dañuy je suis le ministre euh, Abdoulaye Diouf Sarr Ngekoox toll pour hôpital mu nous. effectivement na ci techniciens yi buñ ko effectivement daf ko comme nous daf ko am suis financement on a les plans am nañu suuf soucis, am nañu donc je wax dit ko le ministre euh, Abdoulaye Diouf Sarr te aussi dégg na ma bi

kon c'est il est il est temps nak ñu def fa hôpital ak Ngeko bu wane ne dana mëna couvrir ba couvrir Jeux olympiques motax moo tax ma nga ma dana ma neex trop parce que askan bi moko laj askan bi ko demander té aussi daf ko mérité ci walu population ci walu infrastructure ci walu lénen ak leneen.